yi maa ngi leen di jaajëfal ñëpp lii sabab euh, ma ne tey naa def vidéo ci bërëb bi ma nekk nii du dara lu dul rek nekk ci benn bërëb boo xam ne boo ko dee xool da ngay defe ne ñoo ngi ci àll bi gën a xonq da ne àll bu ñuul kukk la ñu nekk te ñoo ngi réew mi gën a mag ci Sénégal di Ndakaaru Njaay ñoo ngi ci biir xolub Dakar euh, li tax nag ñu fi def vidéo bi ngir soññ ko ci soññ suñ bopp waaye soññ ci képp koo xam ne ñoom ñu nag ñoom ñoo bokk pas-pas ba noppi ñu sañ laa soññ di ñu bàyyi xel ci ne suñu dëkk bee nga xam ne amuñu lu dul moom du dëkk suñu yaakaar ju tedd ji Serigne Touba euh, war na nanoo takkatoo fexe ba dëkk ba ñu naatal ko dëgg dëgg naatal nag bu ñu waxee naatal nag nekkul ne rek dañuy jëmbat genn garab fi jëmbat genn garab fee defe ne déedéet garab yi dañoo war a jàppaloo ba mel ne fii nu nekk nii euh, ta yomb nañu def ko ci mbedd yu mag yëpp def ko ci mbedd 30 yëpp ndax Touba boo dee wàññi 30 yi ay kilomètres la ciy am te yooyu wet bu nekk mën nga cee fi garab ba garab yi jàppaloo ci kaw loolu danañu dimbali ci tàngoor bu metti bi danañu dimbali ci mbooye mi ngelaw li waaye danañu dimbali tamit ci dëkk bi ni muy màggee nga xam ne léegi oto yi yokku nañ nit ña yokk nañ eh, te nit ak ak i jumtuwaayam fu mu yokkee la ñuy soxla ci air bu baax bu muy noyyi la muy soxla ci ak dal loolu dafa war a gën a bari te loolu la ko mën a mayee bu ma waxee ak dal mooy garab dafa bokk ci liy wàññi dur wi bruit bu bari bii nga xam ne mooy am dafay indi ak dal day tax nit mën a noppaliku day yokk wér yaram jonjoo ak garab dafay tax nit ki li muy nokki doon air bu baax bu pur boo xam ne da koy jox wér yaram ci wàllu euh, poumon dënnam ak jëmmi wér yaram yaramam garab dafa bokk ci li nga xam ne euh, njàmbat lu métti li ñuy jàmbat Touba ci wàllu inondation am na garab yoo xam ne boo fa baree sax day naan ndox mi ci suuf ba wàññil ñu nab bi nga xam ne mooy dox ci suuf kon faaw ñu xam ne tàngooru métti wee nga xam ne léeg nit jàmbat ko ne dafa tàng ñu jàmbat ko ne Touba dafa bari mbooyal ñu jàmbat ne Touba dafa dafa dafa nangam loolu yëpp mën naa dañ ndax jumtukaay yi tax mu dañ suñu borom da ko teg suñuy loxo mooy kattan man-man boole ci nag loo xam ne ñu bari jàpp ndiwut ci ñoom mooy ñu am jenn jëmm joo xam ne suñu borom moo ko teg suñu kanam ñu ñëpp ñu ko fonk ko yaakaar def ko suñu wéeruwaay te loo mat a fàggu mu fàggul na ko buñ sukkandikoo ci moom ci moom joxante ay loxo mën nañoo soppi dëkk ba lu keneen di mébét ci ak naataange ca Touba ci ci beneen dëkk ñu def ko ci Touba lu keneen di mébét ci ak naataange ci beneen dëkk ñu takkatoo def ko ci Touba ba li ñuy wax tàngooru métteeg climat bu bu bu ñu jàpp ne mbooy mi daa tàng ak poussière bi dafa bare ak yooyu yëpp mën nañ koo dindi ci buñ lëkkaloo fexe ba mbeddi Touba yi ci ëpp mel nii ci ay garab waaye ñu wut fa ay bërëb yoo xam ne donte dañu am ñaar fukki bërëb juróom-ñett yoo xam ne bu ci nekk dañ koy def poumon dañ koy def ab xol mu nekk ci xolub dëkk bi boo xam ne dafay dimbali nekkin wi day tax dëkk bi mën a noyyi ndax dëkk dafay am lu ñuy wax poumon vert ab dëkk bu dee màgg doon agglomération màgg di yokk nit ñi di yokk oto yi di yokk jumtukaay yi di yokk dañoo war a fexe ba garab yi di bari loolu mooy tax nekkin wa mën a mucc ayib mooy tax wér gu yaram wér gu yaram bañ fa bëgg ñu man ko fa am kon loolu moo doonoon soññee bi ngir ne dañoo yàlla dañoo dogal mu ñëw ci bërëb bii rek xam ne bërëb bi mën a fekkee soññ suñu mbokki taalibe yi ñi nga xam ne sañ nañ ko ci ñoom ba ñu gën a bàyyi xel ci njëriñul garab ci Touba Ca Kanam diinu yàlla na ko ñu bokk ki nekk am nañ ci commission bu ñuy wax commission environnement ci njiital sëñ Fallou Ndiaye ñi ngi ciy waajal liggéey bu ama am solo bu jëm ci wàllu reboisement danañ def occasion woote ci ci képp koo xam ne ñoo bokk pas-pas ne ko sëriñ Abib bu waxee woon moom mii jëwriñu Touba Kanam ne maa ngi woo képp ku ma bokkal pas-pas ñu ànd liggéeyal sëriñ bi ci dëkk ñu woo képp koo xam ne nun ak ñoom ñoo bokk pas-pas te mooy mbokk mboolem taalibe sëriñ Tuubaa yi ñu àndandoo taxaw temm ci bis reboisement yii nu jëm ngir taxaw ci jëmbat garab yi waaye li ëpp solo nag du jëmbat ak garab doomu li ëpp solo mooy jëmbat ko taxawu ko def yitte ci garab gi màgg ndax euh, ku mu ci noonu day boo xamee yiw wi nekk ci jëmbat ak garab taxawu ko ba màgg ba mbooloo man cee jariñoo rawatina dëkku Serigne Touba bi nga xam ne Serigne bi ba nga koy sanc dara koo du jaamu yàlla jaamu jaami yàlla ya fa nekk di jaamu yàlla man di jariñ ci garab goo xam ne yow yaa ko jëmbatoon moo xam nga fekke moo xam nga bañ a fekke njariñ la ci nekk jar na ku nekk takk sa ndigg def liggéey bii yitte ba ñu soppi xar kanam Touba def ko dëgg dëggi Touba dëkk bu naat ñenn ñi di ko wax Touba ville verte Touba ca kanam mu ñëw tuddee ko naatal Touba kon ci la ñuy woo ñëpp ba dëkk bi mbedd moo jaar garab ya mën a jàppante ca kaw ceñeer bi lii bàyyi ko ci jant bi eh, garab yi man koo taataan lii bàyyi ko ci doomu aadama ci ay tooke garab yi man koo taataan fegg ko joxaat nu air bu baax boo xam ne mën nañ koo noyyi ci dëgg-dëgg nun daw ñi dañoo war a conscient dañoo war a yeewu yee suñu bopp ci suñu digganteeg garab ba nga xam ne danañ fexe ba yëg ni dëkk bi dafa war a bari garab dëkk bi daa war a dëll dëkk boo xam ne borom ak garab la ko jëwoo dañoo war a bàyyi xel ci ne nii dundee nga xam ne ñenn ñi dañ naan sax seen dëkk ba dafa tàng dañ ñu koy tooñee ba léeg-léeg sax ñu dëkk ci dëkk bi dañ koy faral di wax loolu man naa soppiku soppiku gi nag conscience la maanaam dañuy conscientiser suñu bopp yëg-yëg la boo xam ne ñëpp dañ ko war a amadoo ñu fas yéene koo liggéeyale Serigne Touba fexe ba Touba doon dëkk bu bari ay garab mbedd yu mag yëpp ndax Touba la fa nekk ci ay mbedd 30 boo ko doon wàññi ay kilomètres yu bare bari la mbedd 30 bu nekk ñaari wet yëpp mën naa am ay rangée buntu kër gu nekk war naa am lu néew néew ñaari garab biir kër gu ne war a am ñaari garab wala ñett loolu buñ commencé def boo tiimee dëkk bi ci fafal naaw da gis ne dëkk bépp day verte waaye mbokk yi boo seetloo dëkk yi nga xam ne dëkk yu naat la ci àdduna bi nga mën a jël dëkk bu mel ne Allemagne nga xam ne mboolem ña fay dem gis nañ ne ci Europe exemple la ci wàllu naataange ak bëggum garab nga dem dëkk bu mel ne Chine dëkk yooyu boo ko tiimee par satellite wala par avion nga tiim ko da ngay gis ne dëkk bépp ay masse verte bu dee suñu dëkk yi nag da koy xool commencé weex daal ndax lan mooy ñun jàpp nañ ne boo defee fii ak garab téeméeri mètre ca kanam nga defaat geneen garab jàpp nga ne yow li nga def ci garab doy na te bañ a ragal ne garab day indi leen may wala ñu bañ a ragal ne garab day indi yoo ndax garab ak yoo amuñu benn alaqa amuñu benn lëkkaloo ndax yoo du nen ci garab du fa jur du fa du fa du fa tàgg bu dee day tàgg kon dañoo war a ñeme garab dañoo war a bëgg garab xam ne suñu njariñ la suñu borom moo ko sàkk wàcce ko ceeb aw suuf boole ñoom ñoom ndax dafa bokk lii dimbali alam bi te ñun ñëpp ñu seetlu ne boo dee boo amee seetlu da nga gis ne léegi loolu bareetul sax Touba mooy toog dégg ay picc yu sab wala nga gis ay pitax yu naaw ak yu mel li ko waroon a sabab yëpp mooy garab yi dañoo wàññeeku te garab yi bu ñu wàññeekoo ñi ci daan dund ñoom bi dañuy ànd ñoom dem te loolu day indi jeexit ci wér gu yaramu doomu aadama yi day indi jeexit ci nekkinu doomu aadama kon daal soññee bi ci bërëb bii ni ma ko waxee woon di bërëb boo xam ne boo ko dee xool da jàpp ne ci àll bi gën a xonk te fekk ñoom mi gën a mag ci Sénégal ab soññee la ak bàyyi lu xel la ñu war a gën a góorgóorlu def yitte pexe ba Touba doon dëkk bi naat dëgg-dëgg ndax yàlla du soppi aw nit du soppil aw nit dara du dul nit ñooñee ñoo fas yéenee am volontaire u soppi seen dund soppi seen bopp inna allaha la yughayyiru ma bi xawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim loolu eh, lañu alquran jàngal te loolu nag sañu ma koo sañu ma cee soññi kenn waaye sañ naa cee waxtaan ak ñi nga xam ne man ñoom ay génération lañ rawatina ñi nga xam ne ñoo bokk Touba ca kanam waaye nag di ci di ko waxee ak di ci soññee ci turu commission environnement bi nga xam ne moom la Touba ca kanam jëm lépp di jëm ci wàllu garab.